mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen nag jàmm ci xibaar yi dañ koy door rek ponk yi wax nag tey ci alxames gi. limub ñi amee jàngoro yi coronavirus daanaka ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett amee jàngoro yi coronavirus fukk ak ñaar ci ñoom jot a ñàkk seeni bakkan daañu ci ñëw nag ak kii di docteur Mamadou jaay euh, mi yor kàddu ko ministère de la santé et de l'action sociale foofee ca Dakar daañu desandi ba tey ci jàngoro yi coronavirus xam ngeen nag réew mi daal dinay dal lu tolloog euh, deux cent mille doses de vaccin njiitu réew mi président Macky Sall moo ko doon dalloo foofee ca aéroport international Blaise Diagne mbedd Thiès xool askan wi naka la ko jàngatee lii nag daa daañu wax ci euh, leneen ba tey ci xibaar yi mu ñeel nag jëm ci wàllu poussière bi nga xam ne euh, sonoon na lool askan wi lu ci bari nag ñi nga xam ne seen i xam-xam màcc na jëm ci wàllu woowee euh, sàkku nag ci askan wi ngir lu jëm ci takkum masque yi ñu daal di koy respecté na faatu Fall wàccoon ci mbedd mi loolee da ngeen ko am ci biir xibaar yi daañu wax lu soxal wàllu njàng ak njàngale ak junior promotion conseil entreprise ci entrepreneuriat ci ñi nga xam ne ñoo di les jeunes diplômés euh, foofee ca euh, SUPDECO lii daañu ci toftal xibaari ñeel bitim biir réew mi daal di wax nag ci wàccu liggéey journaliste boobee euh, di Marcel di nekkoon nag écrivain lii di Covid 19 moom moo ko fi daal di jël daangeen ci ànd ak faatu Fall ci biir xibaar xibaari lii daañu ci xibaar xibaari ñeel bitim réew dem foofee ca RDC juróom benn ci ay journaliste ñu daal di leen lu tollook ñetti atu kaso loolee ak Kumba Fall ci biir xibaar yi lii daañu softal xibaar ñee la tàggat yaram ndar keppeekook lu jëm ci wàllu euh, lii di revue de presse ak Roqiya Mbeng tey alxames euh, yemook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum ñaari junni ñaar fukk ak benn asalaamualeykum ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko waxee ci ponk xibaar yi li mu jàngoro yi coronavirus ñi ko amee tey ci réewum Sénégal toll nag ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett daanaka fukk ak ñaar ñàkk ci seenu bakkan lu toll nag juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne jamono ji ñu ngi euh, Sowétas docteur moom Hadj nu jaay mi nga xam ne moo yor kàddu ministère de la santé et de l' sociale euh, mu ngi gën a ñaax ñi nga xam ne askan wi ñu sàmmonteeg digle kër docteur rawatina lu jëm ci euh, takk mask yi. ba tey ñu desandi ci jàngoro yi coronavirus xam ngeen nag njiitu réew mi président Macky Sall daal di nay dalloo dose yi nga xam ne euh, moo di euh, vaccin euh, Sinopharm bi nga xam ne daal di nañ koy réceptionné foofee ca aéroport international Blaise Diagne lu ni mel nag ñu daal di koy door ngir mun a vacciner askan wi fii ci diwaanu Thiès bu ñu sukkandikoo nag ci mesures yi nga xam ne njiitu réew mi daal dina koy jël ñenn ci askan wi daal di nañ koy rafetlu ñi nga xam ne ñoo sax ci troisième âge ñu teewlu soxna Marème lii mi ñu wàccaloon ci mbedd Thiès. comme ni mu ñëwee ci réew yépp yi nga xamante ne mbas mi laal na leen cargaison bii de vaccin anti Covid 19 daal dina atterrir démb ca aéroport international Blaise Diagne njiitum réew mi di Macky Sall nag xamle woon na ni màggat yi ak ñi nekk ci wàllu wér yaram ñoom la ne njëkk vacciné ci loolu nag ñoo màggat yi ànd nañu ci choix bi Macky Sall def si ñoom ndax nee nañu ñoom ñoo gën a néew kàttan teg ci ñoom la mbas mi gën a sonal. di ba nga xamee ne xelam a ngi ci nit ñi ba mu déclenché cette situation là mënoon a nekk président toog fale wala mu topp politique bi ainsi de suite mais xam xam ni euh, chef d'état dafa dafa diis kenn ku deewee rek day mel na yow yow yow yaa ko rey bi xelam nekkee noonu ba ñu déclante situation boobu amuñu lu dul di ko remercier di ko sant ci ci situation boobu. xalaat bu rafet ba nga xamee ne matewul. vaccin yi matewul ñu ne kon nañu jël ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy gën a loru ci feebar bii mooy ñi nga xam ne mooy personne de troisième âge ak ñi nga xam ne ñoo jegeef ñiy feebar muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci personnel de santé bi. sunu maam yooyu nag ñoom nee nañu pare nañu ngir ñu vacciner leen teg si itam ñu ngi woo seen moroom yépp ñi nga xamante ne amuñu confiance ci vaccin bi ci ñu wóolu vaccin bi rek ba ñu mën leen vacciner si jàmm. te li ñu xam ci vaccin. di ngay aar sa bopp feebar bi amaana dootul a jàpp soo defee ñaari vaccin yi boo vacciné wul kat ah lu la dal yow la mais gannaaw mun ngaa tax ba mu dal keneen foofu laa ne nañu ñàkku nag en attendant vraiment lu maximum ba ñu xam ne vaccin bi kat population yi ànd nañ ci ñu ngi vacciné ku taxaw ne fële ne mu ne moom du ñàkku ñu jàpp ko ne nuut. lii bu ñëwee ñu naan du ñu vacciné wu man daf may jaaxal foog nga nag vraiment euh, sous région bi ñëpp ci Sénégal la ñuy copier. kon ñun buñ toogee di di wax ay waxu dof du ma vacciné wu parce que moom ma vacciné wu leneen la may indil mais loolu foog nga dof pour mën ko xalaat. ñoom nag yemuñu foofu ñuy sàkku rek transparence ak vigueur comme ni ko njiitum réew mi waxee démb ci ay kàddoom ngir rek ñu mën a amal vaccination bi ci ay anam yu wóor ñu mën a génne mbas mi fii ci réew mi mu sant ko gërëm ko moom soxna Marème lii ñu dellu nag wax ci leneen ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi xam ngeen nag ñaari fan yi ñu génn daanaka poussière bi bari na lool ci biir réew mi rawatina fii ci diwaanu Thiès lu jëm ci loole nag lu jëm ci takkum mask yeeg daanaka bañ génn sa kër bu fekkee ne mën na nekk bokk na ci li nga xam ne xëy na dina euh, andi euh, gàllankoor ci loole nga xam ne euh, xëy na poussière bi mun na ko jur ci ay jéeye soxna Fatou Fall mi wàccoon ci mbedd mi reportage bi mu ci amal ñu teewlu ko. waaw dëkk bi moom wax dëgg yàlla poussière bi bari na poussière bi bari na trop ndax doo xoolee fu mu toll nii masque yi moom si poussière bi nii ci la gën a amee solo ndax li waral loolu mooy comme tamit dañ ni feebar bi si poussière lay jógee changement bi am fan yi nii si poussière bi tamit jar na ñuy respecter masque yi ndax tamit dëkk bi moom fu mu toll nii poussière bi métti na ndax doo xoolee si taximaan yeeg sa force si dawal sépp fu toll nii sincèrement poussière bi dina leen sonoon ci kaw tali bi poussière moom baaxul woon ndaka jekk ak jamono jiiñ toll nii kon du poussière ñëwee yoon lañu ñu gën a jëlaat matuwaay di takk masque rek. waa poussière moom bari na moom depuis démb ak tey mais sant yàlla rek parce que poussière buy jóge ci kaw asamaan la ko ñuy ñaan yàlla tam mu doon loo xamante ni lu luy fànq ay balaa la waaw indi ay xéwal. waaw ñu ñaan yàlla muy sunu njiglaay quoi yàlla defar ci lépp waa mais gisewuma ko comme lu garaaw quoi dama gis ni comme ci asamaan si la jógee yàllaa ko wàccee rek mm-hmm. dañ koy sante yàlla quoi ñu jéem a protéger wu takk suñuy masque rek ah waaw démb ak tey moom poussière bi wax dëgg yàlla metti na trop mais nag euh, ñun ñii laal fii ci trottoir yi moom dina métti ci ñun mais tamit te chaque instant dañuy fëgg dàll yi mais ñu ngi protéger wu nag bu gisee gars yëpp ñu ngi tàkk ay masque pour gën a seen bopp ci poussière bi xam nga mooy tëggandiku daal parce que tamit on sait jamais wóorul gën a ñu nag mais nag mooy fi des daal comprendre nga dina métti ñun di nga fëgg daal yi dinañ poussière nañ tilim mais après assigé rek ngay def tegaat ko fëgg daal yi li ci ëpp solo daal mooy suñu kaaraange quoi nañ tàkk masque protéger wu pour moytandiku jàngoro yi daal. nii nag moom wax dëgg yàlla gis nga am ñu sol mbaxana pour moytandiku bu baax mais ñëpp ñun moom masque daal moo ci ëpp solo quoi comme ay feebar baa ngi ci dëkk bi poussière bi it xamoo fu mu jigee xamoo lu ciy rax ngay moytandiku rek moo fi sës quoi waaw lépp lu ñuy def daal nañu xool nuñ koy nu mu gën a normalé rek ñu def ko quoi ba ci lekk yi def ci mbedd yëpp nañ gën a civilisé raxas loxo yi mu set protège daal moytu bu baax a baax a baax waaw moom xam nga rek amuñu. lu ñu tiimal dara la ñuy protéger ñun ñoo mën a aar suñu bopp aussi mu ngoog ñu tàbbi wax nag ci lu soxal njàng njàngale foofe nag ca diko li nga xam ne rek moo di junior promotion conseil entreprise daal di fay amal ab panel bu ama am solo jëm ci wàllu entrepreneuriat ci ñi nga xam ne ñoo di les jeunes diplômés loole nag ñu daal di koy amal euh, ci ak penco boo xam ne dañu euh, fas yéene rek tàggat ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ngir ñu mun a am liggéey boo xam ne daanaka ñoo koy mun a sumbal seen i bopp euh, ñu teewlu ci Amar Bari kàddu. voilà ndaje bi tey mooy que ñun dañoo dañoo décidé woon ensemble sama équipe ak man club mi ngi tudd JPCE fii si école Subdeco institut supérieur la voilà dañ bés bi mbirum entrepreneuriat moo suñu vie nga nga defar sa propre business sa propre business état bi mu jàppale la euh, banque yi tamit bu fi nekkee ñu jàppale la même bu fekkee du sa banque sax sa xarit sa waa kër mën na laa jàppale si financement bu ko def suñu la jàppale di nga mën a avancer am loo mën a defar petit à petit ngay mën a yéeg ak wala entrepreneuriat bi méthode yi méttiwul c'est juste que il faut nga am benn objectif boo xamante ne man nii laa bëgg a def da ngay da ngay objectif nga planifier ko et mise en œuvre bi ñoom moo signifie nga soog a dem si activité bi carrément moo signifie que genre bu fekkee yow pare nga pour def lépp li nga war a def da nga war a defar ba mu normal togg ko ba mu ñor balaa nga mën a yàq. waaw mën nga bañ a toog si ban école nga nekk entrepreneur comme ni ma ko waxee sànq rek en français Youssou Ndour mi ngi nii moom certificat kese la am cm la yem te mu ngi nii bokk na suñu Sénégal il est le Sénégal le plus loolu noonu rek. war naa mën a tax nit ki bu xaar soit damay jàng ba pare ma soog mën a dem def benn business bu fekkee yaa ngi fi mën nga ko am nga volonté ak une bonne organisation soo nekk ni ko organiser rek nga bëgg li ngay def incha allah ba yàlla jàppalee rek kooku noonu exemple koo xam ne moom day créer day créer la l'imagination engagement dévouement volonté ak une bonne organisation kooku moom je vois bi à peu près am objectif tamit dans la vie je crois bien que kooku moom xam fu mu jëm ak ak boole ak ay méthodes yu normal spécifique mën a wax xam nu muy solo xam ku muy waxal xam fu muy waxee loolu lépp tamit si ay qualité la yoo xamante ni dans les pays yu gën a Sénégal ñoom déjà rek entrepreneur moo tax seen dëkk dox comme soo xoolee multinationales yu fi nekk rek entrepreneurial lu état bokk sur les états privés qui sont là Google ñu ko moom entrepreneurial lañ def commencé liggéey seen garage lañ commencé liggéey garage bu ndaw lañ commencé liggéey Facebook moom si ay xaritom bu jigéen la commencé woon waxtaanal et puis mu soo xoolee loolu yëpp mi ngi ni Jeff Bezos ku gën a riche ku moom Amazon moom da doon jaay ay livre dem di livrer noonu noonu ba gars yi commandé aw soo xamee loolu état bi jàppale ko juste que dafa commencé ak volonté bi et puis là yàlla jàppale ko si ak bonne organisation mu xam fu mu jëm mu def tout ba ngoog ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biir réew mi daal di wax nag ci wàccug liggéey kii di Marcel Mendy nekkoon journaliste waaye tam nekkoon écrivain lii di jàngoro yi coronavirus moom moo ko daal di yóbbu leeral yi soxna Fatou Fall lañ ci àndal. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak alaba ji la ñu teg loxo ab ndaw buy wuyo ci turu Bawar ja doon liggéey ci agence Sonatel ba ca Medina lañ koy toppee nag moo di joxe ay numéro autorité yu. yu mag ñuy jot ay appel ak ay message yu ñu mënul bamtuwaat jëmale ko ci njiitum réew mi suñu sukkandikoo ci suñuy source yu wóor Fatim Meng te tegaale nañu ko loxo démb ci àllarba ji ndax moom sekk na dara ak agent bu Sonatel boobule tiis ak nakar moo dal ci monde de la presse ndax kii di Marcel Mendy nekkoon journaliste ak écrivain moo génn àdduna tey jii ci alxames gile amoon nag jafe-jafe noo la ko ko yóbbee di coronavirus mu ñàkk bakkanam ba ñu koy évacuer ca l'hôpital boobu bokkoon ca ña doon coordonner la cellule de communication des chambres africaines extraordinaires euh, ca procès ex njiitu réew moomu di euh, ne Habré jeexalee ko ab ab crise euh, touriste lañu nemmeeku ca sali la ko waral nag moo di état d'urgence bi ànd ak couvre-feu loolee nag moo tax ba ñëy jaay seen bopp ñi ci bëri arrêté nañu liggéey boobu leen ndax ñàkkum client ndax deuxième vague mbas mile ba mu egsee ba léegi seenub liggéey dafa daal di taxaw. mu ngook sant ko gërëm ko moom soxna faatu Fall mu ñu doon jukkil xibaari ñeel biir réew mi noonu la ñuy tàbbee ci xibaari ñeel biti réew wax nag ci lu tollook juróom-benn ci ay journalistes yu ñu teg loxo foofee ca RDC leeral ñu ànd seeg soxna Kumba Fall. tàmbali xibaar yi ñeel bitim réew ca Libye foofu nag askanu Tripoli ñoo ngi doon féete lii di révolution ak itam ñaxtu doxalinu maréchal Haftar fête boobu nag amaloon nañu ko ci bés bi yépp maanaam ci suba si ba ci ngoon gi ca Tripoli bokk na ci fukki atub ren ñaxtu bu ñu defoon ba daaneel ki di Muammar Kadhafi ca octobre 2011 te maréchal Haftar dafa jëloon armée Kadhafi bi boole ko ci ay nitam ngir mën a jël nguur gi ci loolu nag artisan révolutionnaire libyen yu nekk ca Tripoli ñoom gën nañoo yokk seen doole ak seen xadar ngir rekk mën a jàmmarloo ak seen ennemi ya ñu ñëw ci Nations Unies ñoom nag ñi ngi woote ci ñu yamale vaccination bii di anti Covid 19 ñu ngi koy xamale nag ci benn ndaje bu nu amaloon niki démb ñi yor kaaraange Nations Unies ñoom ñi ngi araftu gàllankoor yi mën a am ci ñàkk yamale dëkk bu am ak bu amul kii di secrétaire général ONU di Antoine Guterres fësal na ci ay kàddoom différence bi am ci diggante réew yi ngir mën a jot ci vaccin bi nee na téeméer boo jël si vaccin yi juróom-ñaar fukk ak juróom yi fukki dëkk yi kase lañ ko mëna a jagleel te téeméer ak ñett fukk réew yi des jotuñu dara ci vaccin bi ba tey ñu jeexal xibaar yi ñeel bitim réew ca RDC foofu nag juróom benn taskatu xibaar tëj nañ leen ñetti atuk prison ci biir province bu Mongola suñu juróom benni naataango ci rajo communautaire bu Bumba nekk ñeenti góor ak ñaari jigéen ñoom nag dañoo fësal harcèlement sexuel bu ñu def seen naataango jigéen yu nekk ca rajo ba ñu jàpp ni rek dañoo nekk ci danger ci loolu nag ñii di waa jet jël nañu avocat ngir plaider juróom-ñaari taskatu xibaar yooyu te nee nañu duñu yem foofu nag ndax dinañu def ay action ngir ñu mën a jàpp jiitu rajo communautaire bu boobu nga xam ne moom lañu ñu jiiñ harcèlement sexuel yooyu lii lañ leen indiloon ci xibaar yi ñeel bitim réew ñu ngi leen di jox digg daje ba beneen yoon incha ngoog soxna Coumba Fall sant ko gërëm ko noonu la ñuy tàbbee ci xibaar yi ñeel wàllu tàggat yaram wax nag ci eh, élection CAF bi nga xam ne war nañ ko amal fukki fan ak ñaar ci weeru mars bi ñu dëgmal ginnaaw bi nga xam ne rek kii nekk président sortant amal na tukki nemmeeku fii ci réew ma Sénégal soxna Marème lii la ñu ci àndal. ñu tàmbali xibaaru tàggat yaram ak visitu président FIFA di Gianni Infantino ca Sénégal ci àllarba bi moom nag nee na Afrique dafa war a dajale ay dooleem yépp moo gën ñuy euh, xaajaloo. ñu fàttali rekk ni élection CAF bi ci fukki fan ak ñaar ci weeru mars bi ñu jëm la war a am waaye rekk du pour rekk présidence bi ndax membre africain de la FIFA yi ak comité exécutif yi nekk ci CAF ñoom itam ci lañu bokk. dama jàpp de Afrique dafa war a boole doole moo gën a ñuy xaajaloo mu ngi ko waxee nag ginnaaw bu mu génnee audience bi mu amaloon moom ak njiitum réew mi di Macky Sall Afrique dafa war a booloo liggéey jàppalante ngir rekk mën a yóbbu football africain fu sore ki nga xam ne nag di Gianni Infantino nekk rek njiit de la FIFA. ñu wax ci CAN U20 Cameroun na en quart de finale ginnaaw victoire bi mu am ci kaw Mauritanie ci match d'ouverture bi Cameroun nag amaat na ñaareelu victoire am bi mu doon daje ak Ouganda ca àllarba bi ca Nouakchott kii di Junior Sunday moom mi nga xamante ne moo dugaloon bii bi ci premier match bi moom moo dugalaate bii bi ba Cameroun yi rek mën a am seen premier billet pour dem quart de finale. Ouganda moom dina jouer match de qualification yoon ni ci samedi mu nar ci daje rek ak waa Mauritanie. ñu tëjee xibaar tàggat yaram ak Ligue des champions Argentine nag moom nee na dafa bëgg Lionel Messi dem jamono ji nga xamante ne Lionel Messi moom mu ngi indi ay coow lu bëri ci Argentine ndax rek défaite bi mu am ci kaw PSG ñoom nag nee nañu Messi dafa jot rek mu bàyyi jamono ji nga xamante ne kiliyaan bappe moomu mu ngi indi coow ca France Espagne wala sax ci biir Europe. waaye Argentine moom Lionel Messi rek moo nekk ci kaw bopp xibaar yépp ndax bu ñu sukkandikoo rek ci média yi ak observateur yi fa am yépp nee nañ daal gàcce bi ñu am ci lig de champion bi mooy ci kaw euh, Bayern Munich tax na Messi war a mën a tàkkalikoo ak Barça bu contrat bi jeexee en juin 2021 lii lañ leen indiloon na ci xibaari tàggat yaram ñu jox di daje ba beneen yoon incha allah mu ngoog sant ko gërëm ko soxna Marème lii mi ñu doon jukkil xibaari ñeel wàllu tàggat yaram ñu njar keppeek lu soxal euh, li nga xam ne moo di revue de ñu àndi seek roq yameeg mbokk yi dal leen ak jàmm ñu dikk ci seen xëtu kaay yu tey jii si ni ko dooree ak le soleil euh, di ñu leeral ni kii di président Macky Sall def na nag euh, lu doy waar ndax it dugal si na deux cent mille premiers vaccins yi nga xamante ni moo nar a tax ñu xeex mbas mi dugg ci réew mi boobu benn tey moom it mi ngi yëgle ne filee ki fan sax dina dugalaat yeneen euh, ay millions lu toll ci juróom benn euh, million ak lu teg ci ay doses yoo xamante ne doomu aadama yi dinañ ko mën a jëfandikoo ngir mbas mi mën a euh, fii ci suñum réew. ñu xoolandoo l'observateur l'observateur nag ñëw na ci ay révélation yu doy waar yu soxal Ousmane Sonko ak aji Sarr mu ñuy xamal à sa une ne kat fi mu ne nii am na ay déclaration yu ñu mësul dégg yoo xam ne Adji Sarr ak masseuses yi doon ànd ak Adji Sarr ci liggéey ba ci Sweet Beauty jot nañoo yëkkati ay kàddu bi yor xamle nañu wàllug sangu Ousmane Sonko wàllug serviette bañ ko joxoon pilule yi nga xamante ne waroon na koo naan ak yeneen ak yeneen kii di Sidi Ahmed mbay moom itamit taxaw na taxawaayu avocat ci kële di Adji Sarr moom xam la ne moom moo jël si woon Adji Sarr ginnaaw ba nga xamante ni leeral na ko ne Sonko euh, daf ko euh, tëddee woon loolu mën ngeen ko fekkee euh, ci page 4 ak 5 bu l'observateur mën nañ ne musiba naaru laay de beneen musiba ñu waxtaane ko ba tey ci l'observateur ñu ñuy xamal ni kat kii am na juróom benni fukki at ak lu teg moom nag dafa ànd ak beneen waaye ñu doon rek def ay ñaawteef di tëddee ay ndaw yoo xamante ni amuñu sax age majeur ñu jàpp leen nag def leen ñaawteef yooyee loolu mën ngeen ko fekk ci page 13 bu l'Observateur quotidien bi euh, bokk ci groupe des médias euh, di euh, La Tribune moom nag bi yoon dafa ñëw ak ñun ci assemblée nationale di ñu xamal ne foofee pëccëxoo ak réeroo rekk fa amoon niki ba daje ga nag ngir euh, waxtaane lu jógoon ci teg euh, commission ad hoc ba indi na fa lu kenn xamul daanaka ay dëmbooj sax wax na fa wax yu rëy ndax nee na yokk nañ ay éléments yu bokkul woon ci li nga xamante ni moom moo nekkoon ci dossier wu Ousmane euh, Sonko Adji Sarr mu ni yamu fa de ay meeru ñi ngi dafa jékki-jékki rek ne daal daal di daanu ci kaw nit ñu yor yóbbu l'hôpital ba tey xamuñ ci fu mu mujjee ñu daal dem seeti quotidien bii di la quotidien ndax it euh, moom it mi ngi ñuy dundloo waat équation x ci x ci fu ñu jëm ak x en tout cas Cheikh Bamba Dièye nee na x daal daagu na nànk di daagu di daagu ba yegg si daal di doon Sonko nee na loolu moom lu ko jaaxal la en tout cas commission ad bi jamono ji moo yanu bës bi ci Sénégal ndax it assemblée nationale la ñépp di waxtaane xamante ni moo di les échos moom nag mi ñuy leeral ba tey pëccëxoo ak réeroo gi am ci wàllu ko comité euh, bi ñu tegoon ngir it tuddee ko ad mu waroon taxawee naka la def ngir yëkkati mbalaanu usmaan Sonko ngir mu mën a wuyu ji yoon ñu leeral digganteem ak ki nga xamante ni moo di Adji Sarr waaye ci biir loolu dafa am beneen problème bu am ndax it euh, kii di euh, Tahirou Ndiaye moom nag dafa yóbbu Cheikh Yérim Seck ca fa yoon di àtte ndax nee na da ko jiñ lu doy waar droit parce que nee na moom mooy wutal Sonko ay sëriñ moo koy wutal ay avocat maanaam daal moo ko taxaw yenn taxawu yi te xamul lu tax loole nag moo metti lool Tahirou Ndiaye ba mu yóbbu Cheikh Yérim Seck ci yoon ñu àndandoo ci xibaaru euh, tàggat yaram yi dem ci xëtu yéenekaay bii di stade moom it di ñu xamal ne ah stade yëngu na bu baax a baax ci wàllug Ligue des champions yi ndax boo demee ci euh, huitième de finale yi ñu joué moom mi ngi xamle ne kat ci Premier League bi Manchester City fi mu nekk nii yokku na doole ci li nga xamante rek moo di xóotaay bi ndax am na 10 points d'avance euh, ci Juve nag Cristiano euh, la ñuy waxtaanee ndax moom fi mu nekk nii euh, ginnaaw ba ñu jotee ab punition fële ca Porto ña nga ko wone kat mu sëggal dox doxam Ouragan Mbappé nag moom fi mu ne nii ma ngay tas àdduna ndaxit foofu ca Europe moo fa teg tànk loolu yëpp mën ngeen koo fekkati ci quotidien stade ñu daal di jeexalee suñu làmb mu wone Tapha tin ii Tapha doy na waar dafa moo rajaxe Elton Tapha moo nàccloo bombardier benn question la ñëpp di laaj ku ne di ko laaj Boy Niang dafa war a xeex kii di Tapha wala nan la war a def en tout cas bi du Bawol ku xeex ak moom di nga gis mbër man nag dama doon laaj dong di leen ñaanal rek bëccëgu jàmm. mu nga mbokk yi euh, xibaar yi day euh, daal di buur ñu ñaanal leen euh, jàmm ak salaam waaye itam sàkku ci ngeen gën a takk masque yi ngir ñu àndandoo xeex li nga xam ne moom moo di jàngoro yi coronavirus jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.